sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi dawi nawalil wali laqil lisaani waxlulan minhu luqad wajcalhu daakiran wa shaakiran abada wajcal kalaami raashida wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida anta allasi allamta luqmaana alxikam faliyahab bilmustafa xayra shiyam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 ci murit saadi xam yu eh, yit yu kawe yitte yooye di ku ñuy wax sëriñ ma baabu géey sëriñ ma baabu géey sëriñ tubaa daf koo dénkoon dénk bu am solo boo xam ne ne danañ ci déggee ne sëriñ tubaa kat fenn rek la nekkoon muy eh, alquran ak sunna si yonante bi sallallahu alayhi wa alihi sëriñ tubaa dafa waxoon sëriñ ma baabu géey ne ko wala takun mustaamilan illa bima yuwaafiqu sunnati mimma ulima waalam bi anna kulla fi'lin yaqa'u bi xulfi sunnatin falaysa yanfa'u yow ma baabu bul jëfandikoo lenn lenn lenn lenn lu wuuteeg sunna si bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xam ne jëpp jëf ju wuuteeg sunna si bi du jariñ du am benn njariñ loolu nag daf ñuy delloo ci ne dañu fàttali ci ne Serigne ku ko féetale fenn fudul teg tànkam ci alkitaabu wa sunna yaa ngi koy waxal wala yaa ngi koy dëkkale wala yaa ngi koy féetale fu soreek fa mu nekk ndax bu ñu delloo ci am njàngaleem dañuy gis ne yoonu murit kenn mënu ko génne ci alkitaabu wa sunna alquran ak sunna si bi ndax li mu waxal boppam moom diinun siwa islaamihi la yuhmadu indal ilahi wa bihi nu jaddidu diina jurul islaam rek gërëmuñ ko fa sun borom te diina jooji lay yeesal si muy sunna si bi lil mustapha nawaytu maa yu jaddidu sunnatahul xarra wa inni ahmadu dafa ñëw ngir yeesal si sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ujaddidu shariata almutahara inchaa wal xaqiqata almunawara dama yeesal sharia ak xaqiqa nazaafatuhu kulli min allaxwi taharat wa sunnatuhu inchaa rabbi ubayinu kon da seet ne abiyaat yi ma wax yépp baatub tasis du ci feeñ maanaam sos tabiyin ak tajdid rek nga ci dégg biral ak yeesal biral ak yeesal te am na euh, kenn ci waykati naar yi ko waxoon ne yoonu Serigne Touba bi ma ko seetantalee gis naa ne ku digg doomu la ci sunna si bi te it alquran loolu la ñu wax maanaam dafa wax ne moom yoonu Serigne Touba daal mooy dax wa ad da'wa rabbaniya ya maanaam kuy koo xam ne day woote jëm ci sun borom te diggu doomu nekk ci sunna si bi sallallahu alayhi wa sallam ëppalut ni yenn mutasawif yi daan dundee waaye woyofalut it ni yenn fuqaaho yi daan dundee moo tax mu ne daa hidaayatuhu qasdun isa dayiqa allazi tasawaf jahlan aw tawasax dul fiqih te alquran it loolu la wax wa kazalika jaalnaakum ummatan wasata def nañ leen ngeen di xeet wu diggu doomu moo tax Sëriñ Tuubaa day wax ne yéen de digal naa leen ngeen nekk ñu diggu doomu bu leen ëppal bu leen yeesal na ngeen digg doomu ci sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wala takun mufarritan aw mufrita bal istaqim fi sunnatin wa aqsita kon nag liñ ciy déggee mooy Sëriñ Tuubaa de nekkoon mooy eh, ci alkitabu wa sunna te it nee na ñett rekk fi nekk waaye kenn laa ci àndal buñ demee ci téere téere boobu ñuy wax xikma ci xëtu fanweer ak ñaar page 32 ku dem da nga ko fekk lii Sëriñ Tuubaa wax ne képp ku jublu yàlla rek te raxu ca dara sama àndandoo nga ndax ñoo bokk fuñ ñu jëm maag yow waaye ku jublu seytaane tàqalikoo naag yow ba faaw ku jublu yàlla it ànd ak seytaane tàqalikoo naag yow ba faaw moo tax mu ne man tawajjaha ila arrahmani arrahim rafaqnaahu wa man tawajjaha ila sheytaani rajim faraqnaahu wa man tawajjaha ilallahi tabaraka wa taala ma cheytaani rajim faraqnaahu kon loolu njàngale mu leer leer la la sëñ bay jaxate waxoon nag loole rek ca la ñuy dellu sëriñ bi kenn mënu koo gàkkal ndax yàlla suturaal na ko ba lam doon jëf ñam nekkaloon gis nañ ko xam nañ ko bind na itam bàyyi fi wax na itam ñëpp daan dégg daana wax na itam gàttuma tànk te yàgg di fi moo tax sëñ Baye Jaxate day wax ne sëriñ bi wax na bind na def na nu gis te digle na lii moo ko warkat wàcc na mosaloo mooy mosala fo waxama gën waxi ku ne jëfama gën jëfi ku ne waayama gën waayi ku ne waayam ca dëgg nag du fo foo gis ku neeti waayama muy fooka nekk fa poma bul gëm ne kooka waayama waayam ca dëgg dootu fo foo gis ku neeti waayama muy fooka mooy xumaagama foo gis ko neeti waayama wet dil ndegam gis nga mu fo wurus bu yàggee am xumaag xaalis bu yàggee am xumaag lépp lu yàgg am xumaag xumaaga fi ruus ak fo bamba wurusu sell la waayam daram bu sotti la te ku amub rax yeru la ab raxa bon day taxa fo xànjar lu dar dar ci wurus azal bu ko tëgg di gis xam ne dafay niri wurus ne du wurus wurus du fo wurus lu sellul bokku ca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 wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.